waxaw li la xawul wal asjaar kal asjaaril firdawsi yaani fil jannatil firdawsi manzilana nahnul muridin nahnu saadiqin li ma bëgg a wax moo di bi nu ñëwee dinañ ko taq siir sax fan yi nu fi bëggoon a am mën naa am dañu koy xaaj ci digg bi ndax itam kenn du la may lépp nga jël lépp loolu ma tax li nu bëgg leeral rekk nu nekk gi nuy nekk fii ci bisu màggal gi di bàyyi ñoom borom baax fale ca kër Seydina Ousmane ca Touba loolu danu cee dëppoo ak xalifa bi Cheikh Mouhamadul Mountakha waaw bu doon lu ñuy joxe ndigal dama naan ndigal lan ci am ndem communication dafa xew damay bàññi rek ñenn ñi nga xamante ni bi xel ci xel la ñuy dox am dox ci xel baax na lool waaye ci kaw nag mu lay xelal lu rafet sànq taalif bi ma doon bind ci Touba garab la goo xamante ni bii ca àjjana àjjana li muy yaatu yaatu barab bu fa mën a nekk palais bu fa mën a nekk am na benn branche bu la tiim maanaam Touba dafa doon garab goo xam ni ci àjjana li àjjana yaatu yaatu fenn fu fa nekk am na benn caru garab ba bu la tiim ak i meññatam kon mën na noo wax ni tekku tedd ki dafa waxoon ni dëkkam bee di Touba na ko def ni turandoo kon léegi xanaa noo ko gisul waaye fii am na bu fi tiim invisiblement bu fekkee gëm nga bee rek da ngay gëm bii ndax bee gisuñu ko ku tedd kenn ko wax nu gëm ko kon bii itam dañ koy gëm buñ ko gisul maanaam kon Touba ci boppam ak leeram banqaas yi ay leer ay anwaar nga koy firee dégg picc yi ak li ku tedd ki wax ca taxmiis astaxfirullaha ma laxa sabahu wa ma taxannati tayru fil axsaani bi naxam seen mélodie yi ñuy def au matin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 هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر سلام